ان ان ان ان ان مبروك جلدي مبروك ان نيغي في شي كير ان الخليم دي ييكيت سي ان كادو سي نديغال الشيخ ان منتخا ميغي خاني مو ان سيرين توبا تي جيكو ان نيو نيان مو ياغي ان لول تا اندك وير ان نيو في سي نديغالم ان غيناو بوما وولو وولو ان مقدمه الخدمه سي نجيت ان عافي بوسا الامام bi ñu agsee itam sëriñ bi yëkkati ay kàddu wax ndigal li nga xam ne bëgg na ko ci joxe na ko ci ndigal yi ci dëkk bi ci jàkka yi ñu war koo saytu war koo taxawu kon li nga xam ne santaane na ko ci ginnaaw bu mu ci joxee ndigal jottali leen ko ñuy ñaanal nag bu baax sëriñ bi mu yàgg fi te ànd ak ndax li ma ko wax léegi rek li ëpp solo ci li nga xam ne suñ borom defal na ko ko mooy ku gis jëmmam rek mu delloo la ci yàlla suñ boroom ndax farlu ko ci jaamu yàlla ak jël léppam jox ko yàlla suñ borom te bokkaaliwu ci dara waaye jël léppam itam jox ko Sëriñ Tuubaa laxasaayu doonu taalibe bi ku mel noonu nag kon Sëriñ dafa fàggul ak njabootam. ñi nga xam ne ñoo ko fi nekkal ku fi agsi rek mate ko sëkk moom mii nag yàlla dafa def ku fi mas a jaar rek mu laxasaayu euh, doonub taalibe ba laq sa ngërëm ba tey muy Serigne Touba bi mu doonee Serigne Touba ba nag itam ku ne xam na ne lépp loo xam ne mi ngi koy santaane génnut ndigali Serigne Touba muy kilifa gu bari yërmaane goo xam ne bu sañoon ñëpp ne ci jàmm. ba suñoon fitna du am fenn moo tax itam loolu nga xam ne moom lay dund te di ko yëg ci diggam ak Sëriñ suñu borom fayee ko ko ci biir xoli taalibe yi wa min saadatil fata xaysu xasat allah doxu fa adu si rasat moo tax Cheikh Mahmoud Muntaxa waxuma taalibe Sëriñ Tuubaa yi ak njabootu Sëriñ Tuubaa ku ci ne jàpp nga ne séddana la ci sa bopp loo xam ne mësu ko am ci kenn ku ci ne jàpp nga ne itam sédd na la ci boppam la séddu ko kenn waaye ni mu ko defee ci taalibe Serigne Touba yi def ko ci bokk yi noonu la ko def ci mboolem jullit yi le Serigne Touba fépp fu ngeen gisee ab jullit rek na ngeen ko def muy seen mbokk Cheikh Modou mu loolu lay dund. kon nag ñu ngi koy ñaanal bu baax mu yàgg fi te ànd ak wér ndax yitteem jëpp wax naa ko ko léegi ñu ñii kenn ku ci ne yaa ngi jéem a góorgóorlu ci sellal sa digg ak loo man ci sa digg sa borom nga di ko def waaye moom nag da caa sax te boolewu ci dara boolewu Serigne Touba dara amul benn bëgg-bëggu àdduna lenn loo xam ne man ngaa wax ne Cheikh Mouhoun Cheikh Mouhoun taxa bëgg na ko ci àdduna xamu ko du kër du du oto du dara léppam Serigne Touba la ko jox kilifa gu mel noonu ku ko yàlla def war nga saa soo xëyee di xoolaat ci moom te roy ci moom te xam ne lim lay digal mooy doon la ci yow te Serigne Touba بيم سوسي مريد دكوا تجعل أسرت وما هو السلب الاختياري لحسن ظنه بلا إنكاره بكون نتليب تالي بوردف ما يبصرين بدقلة بالخال لجنة جب جسم خل نحبوا بعطوب بيجي توب سرين بيد دوا خمطة لمجرين نح سرين بق بس وقت ولا مريكو فتلة ما خوهم كان ممتع منك نجا ما دخل سرين دقة سرين توا لم يدقلك دين كوارف wa tarkul ictiraadi mutlaqan walaw bi baatin alay fi ma xadaw sëriñ Tuubaa nee na taalibi balaa ak taalibi mu wér du dingaan mukk ab sëriñam doonte waxuma dingaan ko dingaan ko ci bit waaye du ko dingaan ci biir te cheikh sëriñ bii kan nag ku ne xam na ne lenn loo xam ne ak matadi la wala lu ko nit wara a mën a sikke yàlla def ko ci moom kon nag ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lu tànd ak wér dëppook aaya rek wa maa kaana li muminin wala muminatin isa qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum al xiyaratu min amrihim loolu suñ borom santaanoo ci suñ digg ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom mii nag fi mu toog tey moo doon Serigne Touba te moo doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon lépp lu ñu wax rek dañuy xam ne maa ngi toog wax ni la waa. ndigal li mooy ngeen ko xamee fii àdduna toll lii nga xam ne ak wér di la te suñ borom wàcc ko ci kaw suuf. te mu waxoon ca la Serigne Touba waxoon ca eh, peste boo amee ci njëriñ fum yàlla suñ borom lu mu fa wàcce waxtu ko suñ borom jeexale mu jóge fi waaye kon li ci suñ boroom santaane ci adduna ci lu war a sàmmonte loolu sëriñ bi mi ngi koy fàttali looloo waral sax ngir nag bëgge eh, gàttandu dogalu suñ boroom moo tax sëriñ bi di santaane lii nga xam ne mi ngi koy santaane ci biir loolu itam nag ñu ngi ñaanal bu baax xew-xew bi nga xam ne amoon na fa nii ci jàkkee jooju ba ay jàppante am fa ñu ngi masawu njaboot ga ndax ñoom ñëpp taalibe Sëriñ Tuubaa la dëkk bi ku fi ñëw ku ne da ngaa gàddaay ngir yaakaar yërmande yàlla yaakaar xetliku Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa waxoon ne ku fi sam xel indiwu saw xel indi fi kon nag ñi fi ñëw ñëpp loolu leen kon nag képp koo xam ne lu mel noonu dal na la fi te muy doog suñu borom. loola ñu ngi koy ñu ngi leen ci ñu ngi koy ànd ñoom tey eh, digal ñi nga xam ne itam ñoo yor loolu ñu gën a teg ak doomu aadama yi teg itam nii jëflanteeg nit ñi ndax eh, nit dodul bant suñ borom daa wax ne wala xad karam na bani aadama kon boo koy digal loo xam ne njariñam itam bokk na ci xikma ba nga fexe ba waxee ko ko noo xam ne dañ la mën a dégg muy ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati hasana ndax loolu rek ko indi